mbay anamu mbay dikkal dikkal mbay dikkal mbay kaay mbay dikkal dikkal mbay dikkal mbay kaay mbay dikkal dikkal mbay dikkal eh, dikkal dikkal mbay lalal basan cey eh mbay lalal basan doo la indaale xanaa la indaale xanaa bi la indaale bésu orange la indaale 1000 francs rek lay jar moom bés canette la et 300 may. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbaye Mbaye def. grand waaw. baal baal baalul ak sénégalais yi ba pare. man doog a wax loolu après la. ah après la yow. waaw. waaw baax na ñu la si liggéey bi. mbay indi nga ma bes. waaw 1000 francs la carton bi di jar benn bi 1000 francs waaw bii 300 300 wàññi nañ ko. ci yàlla. mbay tey la bii gën am doole. wuy ma. istron chèque. istron mais bu ànd ak meññeef yi. banaan ak orange ak yooyu ak kar ak fraise mu ngi nii istron chèque. te yaa ma doon wax fruit boo gëj a bool boo laalee istron chèque ko ci biir. yaa ma ko doon wax. nekku ci nag en en en morceau mais daf ci nekk ci biir guu. waaw. istron yaa ngi koy daaneel mbay istron chèque banaan pomme corossol fraise yëpp a ngi nii. wuy tamit am na mango madaar. xam nga ñoo ko xam. waaw parents bi nga xam ne xale yi bu ñu génnee récréation seen yëre day tilim bu ñu ñëwee classe la soir. ñu soog a baax na ñëpp laa wax ci kër ak oto lépp. baax na si bés. lépp baax dara. ak lu oos. mbay lay may seen lan la. wuy ma waaw. léegi ñu jublu si. mera bi mera bi ana mera. mera produit lundi lay ñëw incha allah lay ñëw. waaw dama amagul produit. amagoo produit. amagoo mbay baal ma àq. baal naa la àq. yàlla boole baal. baalu waatal ak sénégal yëpp. loolu dama ci loolu dama ci ñëw léegi. dama ci ñëw. nan nga dundee démb xibaar bi. ci Kouthia. metti na woon. metti na woon trop man damaa jooyoo jooyoo jooy wuyu ma. waaw tey lay doog a commencé Kouthia Show. man tamit jàppal na tey la premier avril mooy sama première émission Kouthia man tamit tey la bi ma commencé def comédie boobu ba léegi. ba ba tey. 89 laa la wax de. waaw événement naar yi. waaw depuis 1989. waaw ba tey maa ngi def comédie. tey jàppan na loolu yëpp ay nax la woon tey lay tey commencé. man tey lay doog a leer. mbay. léegi xam nga lan la. waaw wuy ma tey damaa bëgg nga bëgg la wax askan bi bu baax a baax. ñëppay kontaan ñëppay kontaan. waaw teex teex. maye teex teex. maye <laughs> ah, ah. teex teex. cey cey ne ah cey cey way ah